te da koy rafetal jox ko macha allah daal man de wax dëgg yàlla man dama koy def dama ko ciy def ndax day tax sa togg valeur bi gën a génn gën a génn waaw xolom la ci togg daal man vraiment. non non c'est pas forcé mais daal lépp lu yokk taar ci togg rek mën nga ko ci ajouter amul benn problème. kenn ku nekk ak ni sa doole toll rek bu fekkee ne bëgg nga koo def ci sa togg bu la neexee nga def ko ci sa togg bu fekkee ne bëggoo ko nga bañ ko cee def rek waaye am na ñoo xam ne moom dañ koo bëgg dañ koy def ci seen togg am na ñoo xam ne nag moom jaru ko. ñàkk ci togg gi ah mais day rafetal rek décor la rek ci ce matin rek moom laa jënd ci bitig sama bitig bi ne sama koñ mais yooyu day rafetal rek yooyu pour décor la rek te yooyu aussi c'est bon baax na trop de. da ndawal moom da koy accompagner ay crudité ak ay yooyu mais mënoo togg ndawal rek noonu waaw. vraiment yooyu moom day rafetal ay ay kii ay crudité yooyu yëpp da koy rafetal. ah man de man ci man si sama togg. mën cee ñàkk lu mu cher cher lu mu cher dañ ko siy dugal parce que mënut a ñàkk. ko ci ñu décorer affaire bi neex a neex a neex a xool neex a présent. yow yooyee nit ñi di wax ne njëg li dafa cher. ah yombul moom Dakar euh, fi actuellement nii dara yombul wax dëgg yàlla dañuy demee ngor rek waaye fi moom macha allah yi métti na trop. fu ne kay marché bi yëpp a seer dara yombul lépp a seer ci biir laa dugg sànq waaye lépp a seer yëpp a yokk olive. tout y a ah da en fait. waaye ci yi ñu di ji abordable na. waaw man ci suba à 650 oignon blanc 650 olive 650 euh, cornichon bi 650 trois pots 2000 la ma dikki c'est pas vraiment cher

ñoy yim doon jar rek mom lay jar ak ki nu de ti oño blanc yek yoy yep mom lay waaw wa yoy yep mom lim doon jar mom lay jar waye mom yeneen yi wañé mom, mom ay kaani salade dafa cher kaani salade mom dafa cher mom mom ay ay ki la daan jar ay kilo 300 leg mu ci 1500. ki di Moustapha ñu fekk ko ci ab bir boutique muy xamle ne yile ingrédients amulul ñak lolé tax client yi di ñew ndank ndank wa ñu koy jënd la lolu mënu ñak ci ki ci fête bi mënu ci ñak dal wa wa ñu koy jënd. wa wa ngi koy rek xam nga affaire yi mom moy lolu wëccet rek ñom ñaar ñoo and bo jëndee soble di nga jënd li wa do nga jënd pomme de terre parce que tok bi lolu mënu ci ñak li mënu ci ñak soble mënu ci ñak pomme de terre mënu ci ñak wa ndank ndank rek xam nga dëkk bi neexul am nañu yéene ji mais dëkk bi neexul. 650 wala 700 ça dépend ci de ko li ko waaw. condition hmm, lay 750. condition 750 lay 650 mok blanc olive petit pois 900 très faible, mais dans façon amna très fin amna extra fin petit pois bi da nga 900. 900 waaw amna bu 1000 francs waaw ça tabaski nekk feet bu mag pour jullit ñi ay fan ngi nii ñu koy waaj bu baax. donte sax doxin bi metti na jamono ji ñoom ñu lee di ci def seen kéemtulaay kàttan ngir bis bi mëna neex.